macha allah Ousseynou lan nga ñuy wax ci làmbu Diène Kaïré Zarco bi. waaw Diène Kaïré Zarco combat ñaari jàmbar lañ. Mhm. ñaari jàmbar yi fekk tëdd ay mbër yoo xam parce que Zarco su jugee Grand Yoff côté Arafat yëpp dañuy dugg Diène Kaïré ay Fass dafa daan mbay guy gi daan kon mooy Diène fourni moo tax combat bi du combat ñaari jàmbar yi fekk tëdd lañ boole muy Zarco foo sànni mat nag dina tàkk Ibrahima dafa tëgg combat mais xam ko combat bi instant dañ ko yëpp parce que ñaari mbër yoo xam amateur dañ la bëgg ba pare ay mbëru gox a def ci làmb ji. ko indiwoon benn loxo rek bu ma ko mooy muy ko mu ko agressé quoi. Ah. même su koy agressé ko du ko gis mu mën ko turu jàpp. ko jàppee ko te gëmul xeram su parce que suñu bëri rek bëri pire moo gën mm-hmm. am nañ doole am nañ kattan bi am nañ physique ba pare ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. ko daan jël bu parce que ay daan mm-hmm. la war a def. Zarko moom dafa war a jege mm-hmm. jën ah. euh, bëgg na bis bi am na masse mais da nga xam ne daj na ay coono. moo tax combat bi du combat bu yomb. Mhm. dafa man dama la yërëm sa ñaari mbir yi. dëgg la ku si daan nekk kenn mënu ko bañ su daan nekk kenn mënu ko bañ Diène su daan nekk kenn mënu ko bañ. Mhm. parce que moom dëgg na li ci des matul vingt jours. Ah, Modou Lo ah. ah. ni kenn maa bëri Bombardier maa bëri Balla Gaye maa bëri Lac de maa bëri Gris Bordeaux maa bëri Eumeu Sène nekk roi des arènes bi mu ñëw ci làmb guddul dem bañ naan ko xarañ loolu dem jël càpp tëy booy ñaam doomu déggoon champion bi ah. maa daan Balla Gaye maa daan Sa Thiès maa daan Gouye Gui maa daan les deux maa gar maa daan Garga Mbossé fa yemoon sax mu doy bi mu daanee Balla Gaye la dugg seen biir parce dafa jugoon ci ñaar defet Moustapha Tine ko mm-hmm. Lac de daan ko Pikine ñii di mer ñi naan est moom la est mbër mu ñëw daan Balla Gaye tey moo indi lii yëpp tey mu may ko mu bëri Modou Lo tey Modou Lo Balla ko daan boo ñaa ñu daan Balla kon làmb dina boole kon combat roi la roi la bu combat bu métti la bi dina neex bëri dina neex mm. bi dam yi la xeex bi dam yi la parce que ñun ñaa dañu xeex basa dri mm. sànq maa ngi dégg naan Modou li mu yor boo ñaa moo ko soxla Modou ane seen damay taxaw xam ko pied parce que Modou gauche la man su ma ko diggaloon day xeexe benn loxo rek kese bu ma xeexee ñaar loxo parce que dama gis moom ama bu ko ama gëddee dafa riposte dul ko ay crochet non man combat bëgguma ci loolu combat benn benn laa nga xam da koo moo ko moom parce que pied droit nga koy jekk pour koro ah. te Modou noonu la mën a xeexee boo ñaa pied droit la ba pare di xeexee benn loxo moom saa yu la dóor si dóor dal moo ko soog ba yàgg wala combat bi moo tax ma ne la xeex bi dem yi la bëri bi dem yi la ñoom ñaar wax dëgg yàlla suñu bëri dina neex suñu xeex dina neex parce que ay champion lañ ay daral lañ jërëjëf Azar jërëjëf Ousseyn waaw di la sant rek di ñaanal waa Salim ne suñu borom dafa leen yokk ak tawfiq ñoo xam lañ bëgg yàlla na ko yàlla barkeel dem boobu nekk télé nag wax dëgg yàlla suñu xol lañ ko defee di nuyu père Birahim nga xam suñu kilifa la suñu papa la nekk ku dëgg ku am diine vraiment man Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.